Magalu daro xudus ñenti fan képp ci comité d'organisation bi kilifa nek ci gox bi ak yenn service déconcentré concentré nyom ñoo ngi yëngu ci wajta yu magal bu mucc ayiba ci altine ji nak amal nañu benn ndaje ngir xolaat engagement yëpp nga xamanteni Nanyuko, jëloon nañu ko Mamadou Lamine Mané préfet bu département du Mbacké te du mbir yi la donc di CHAMBAR... donc nous administration euh, force de défense et de sécurité nous muy sapeur pompier gendarmerie de police la société concessionnaire du Sénélec avec Sonatel ak avec ma nous donc nañu nit nous problème donc sommes sécurité gendarmerie police sapeur pompier set setal donc wàllu ndox wàllu courant wallu téléphone ak lu ci topp ak lépp loo xam ne nit dina ko jëfandikoo ci màggal bi. ci loolu leen nag organisateurs yi ñoom ne nañ seen xel dal na bu baax a baax ndaxte engagement yépp réalisé nañ ko daanaka à cent pour cent. dëgg yàlla euh, ndaje mi mënu woon a ñàkk nañu njaare njaareem ñuy euh, ndaje mu am solo. yee ñu fa jige woon yëpp euh, wax dëgg yàlla suñu xel dal na ci ndax euh, am na début d'exécution bu am solo boo xam ne def nañ ko ci am na ci yoo xam ne sax am na 100 pour cent déjà loolu lu am solo ci njeexantalu ndaje bi nag joxante nañu dig daje ci aljuma ji ñu jëm am na itam ay ñaan yu am solo yu ñu def ngir organisation bu jaar ci yoon bu magalu daaru sax